<coughs> ngi leen di ziyaar doomi dëkk bi doomi réew mi ñu ngi leen di siyaar yéen ñépp di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di leen bége yéen ñéppoo ñéppoo ñépp di rafetlu seen taxawaay seen détermination seen bëgg réew mi seen taxaw temm ne incha allah ay fen moom ci dëkk bi dana fi jeex de <clears throat> seen taxaw temm ci sàcc alalu askan wi dana fi jeex de seen taxaw temm ni dañuy ne baykat yi di ko jël di jaay engrais bi di jaay jiw wi di ko yóbbu ci seeni tool di ko fa def incha allahu rabbi dina fi jeex ndaw ñi taxaw nanu temm paa yi fi yàgga toog di kompaloo di nax ndaw ñi di dund tey ci alal ji nga xam ne tey moo war a mën a jariñ ndaw ñi tey ndaw ñi toog nekk ci ay jafe-jafe ñii di dund souffrance ñii am ay problème mu cancer amuñu tey ji système sanitaire boo xam ne tey mën naa yiir sénégalais yi ba nekk ci ay jafe-jafe incha allahu rabbi dina deñ daañu xeex ak yéen daanu jàmmaarloog yéen bu jaree tudd seen cott ndey yi daañu ko tudd bu jaree xamp seen xuuru bàyyi daañu ko def lu mu jar ak ñun ak yéen billaahi wal kitaabi dinañ ko def parce que xam nañ ne du ngeen ay nit yu am ngor nit yoo xam ne da ngeen a taxaw pour bëgg jàppale seenu askan nekku leen ay nit yoo xam ne patriotisme dafa nekk ci yéen ay nit ñu soxor ngeen ñaata parti ñoo nekk ci réew mi man nga fee lim ñetti téeméeri parti du ma ne cent de wala deux cent ñetti téeméeri parti la wax ngay compter cent bam di ñetti téeméer lu teg ci ay partie ñu ngi ci réew mi musuñoo am ay patriotisme ñoo xam ne bokk nañ ab parti wala nekk ay leader ci parti am ab taxawaay boo xam ne tey jii nii maanaam fas yéene ñoo taxaw pour jële sénégalais yi tey ci jafe-jafe jii parti bu fi mas nekk tey ay bëgg a bootoog ay topp ci nit ñeeg ay ñu seet ci la guddeeg ngeen di promesse ak ministre bii nga may joxam après élection yi bu ngeen tasee ensemble bi di defaat référendum député bëgg na maa am temps de député bëgg naa post bi yooyu maanaam moo tardé réew mi liggéeyu leen tey pour yër yërmande am ko ci askan wi liggéeyu leen pour gis askan wi jafe-jafe yi ñu nekk tey ngeen taxaw leen ci genn xëcciwu ci pour loolu ay sàcc ngeen ay nit yu bon ngeen famille bu ngeen dugg ci Sénégal am na fa ay nit yoo xam ne tey am nan ay problème mu santé famille bi ku ne tey sa sa sa sa fit ni tëll mënu leen a jàppale nit ñi mënuñoo tey réew mi maanaam ak lu mu metti metti metti war ngeen fexe fexe fexe ba am benn système sanitaire boo xam ne tey sénégalais yi jafe-jafe yu bari di leen di wàcc sénégalais yi wéradi moo leen sonal li gën a sénégalais yi ci réew mi wéradi amuñu système sanitaire boo xam ne tey day jàppale sénégalais yi taxawu leen ku ci accidenté di bëgg a dee ah kun ci yóbbu ci hôpital yi sunu dëkkandoo bi Hakim mii ñëwoon nekkoon Sénégal ak jabaram gis ngeen li ci xew ak yeneen ak yeneen am na ci samay mbokk am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey yin daj ci hôpital yi jafe-jafe yi leen stress bi leen hôpital yi teg tey jii maanaam tawaroon leen a wàcc ñu am ay njiit yoo xam ne sàcc la ñuy def san lañuy def di tappale guddeeg bëccëg fu ñu maa ngi leen di gis tey jii ñu ko dem kër euh, Waly Seck ni ni dañ koy euh, ni dañ koy jaale mais heureusement ba Wally di wax ak euh, Amadou Ba naan ko ndax doo kii ak boo ma taxaw ak nangam nangam ba Amadou Bay taxaw Wally Seck talu ko yàlla jël na jaaga waalee nga sa dëj jaaga yàlla na ko yàlla yërëm mais waale taloo ko heure bi waroon naa nekk fii tey nga am discours boo xam ne tey di wax ak homme politique yi fi nekk parce que foo woote xale yi fees fa denn xëy ñu guntu genn wàll gi bu ñuy dugg ci seen soirée yi seen yi la ñuy këpp genn wàll gi bu ñuy ñëw ci seen soirée yi seen pochetu yaay yi la ñuy euh, euh, la ñuy ubbi genn wàll gi bu ñuy ñëw ci su soirée yi seen kopparfooru bàyyi fu mu nekk ñii di sàcc seen oto yaay ñii di sàcc seen seen oto bàyyi te tey dëkk bi mel noo xam ne tey ku fi mesure am 18 war ngaa mën a yor sa appartement yor sa yor sa jabar yor sa kër di xëye ka wàcc ah loo mën a doxi tey ciw yiw ci jàmm ak sa mbokk tey nga doxi ko du la yàqal dara ngeen taxaw tee réew mi di ko tiige maanaam di ko doomu ndayoo di ko defee lu nekk yéenay falante ci seen biir yéenay am yéenay am oto yu rafet yi bëgg a nekk ci privilège yoo xam ni yéen rek rek la ñuy yaakaar ni yéen a am ndey yu baax yéenay dund ci loo xam ni kër gi tabaxal naa ko sama nday ñu yaakaar ni yéenay ñi nga xam ni yéenay yéenay borom yaay yu baax yeeg borom baay yu baax yi fekk ay doomu xaraam ngeen alal ji ñëpp bokk tey mu waroon a jariñ ñëpp ci système sanitaire bi waroon a jariñ ñëpp ci système éducatif bi waroon a jariñ ñëpp ci système euh, euh, environnement bi tey alal jooju ngeen jël tey di yàqate ndayam loolu nag moo jeex ndaw ñi dañ cee yeewu te ki ci yeedu kenn kenn ku dul Ousmane Sonko fu mu ni xool leen fa fa la ñuy xool kum ni voteel leen ko moom la ñuy voteel dinañ ñaf seen ndey ba élection yi dinañ ñu seen ndey duma yoo xam ne ay seen préparation ay deuxième tour ay seen préparation seen candidat fantoos yi benn du ci jàll candidat bu ngeen fi teg bureau bu ngeen dem zéro lan fay am ndayam kenn du leen votel parce que ñoo yàq alalu dëkk bi Aly Ngouille njaay kenn du votel ndayam mook bu jon ci gouvernement bi lan nekkoon bi Aly nguy njaay naan carte d'identité yi def nañ ci cinquante deux milliards moom ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ak taxaw fi ndayam deux mille dix-neuf naan askan wi képp koo xam ne Macky Sall nga àndal boo bindu jiwul dinaa fexe ba nga bindu boo bindoo dinaa fexe ba nga jot sa carte boo jotee sa carte d'identité dinaa ba nga voté nguy Ngouille Ndiaye boobaak léegi juróomi at la xalaatum leen leen a jox nday réew mi yéen pare ngeen ci réew mi képp ko xam ne nag ci yéen ñooñu nee ngeen am ngeen xam-xam am ngeen compétence man ngeen a liggéeyal réew mi saa buñ jëlee réew mi teg ko ci loxoy ndaw ñi ba sopparñe institution yi réew mi ba kenn dootu fi mën a sàcc dërëm kenn dootu fi mën a këpp kees kenn dootu fi mën a tourner jiwu kenn dootu fi mën a tourner engrais kenn ku ci nekk na compétence boo am nga ñëw nday ci réew mi liggéey yem ci sa salaire laa leen wax loolu lañ leen wax réew mi dañ koy teg ci yoon jafe-jafe yu nekk fii ci réew mi yéen yéen a ko fi teg indil askan wi ay jafe tey ba am benn taxawaay boo xam ne sénégalais yi mën nañoo nekk ci jàmm lu dal sénégalais yéen ñii la imbéciles yi bu ay élection ñëwee nag ngeen di tamante dëmm mel ni ay mbootu duus di warante guddeeg bëccëg yooyu moo jeex ci réew mi waaw mani fukki leader mën nañoo bokk benn parti lool du jotewut ak politique dara fukki leader man nañu bokk benn parti élection jot benn parti génn fukki leader ku nekk indi sa programme te yéen a bokk parti bi ni man programme bii laa bëgg a doxal programme bii laa bëgg a doxal ku valider sa candidat ngeen wàcc ci terrain bi campagne ah mais ngeen nekk fii ñetti téeméeri pat muudu karaa yow ku mel ni muudu karaa ah yéen campagne yi yeen donte du ngeen ay candidat mais yeen moom yeen lay campagne yeen ñooñu ay Ahmed xalifa ñas yi ñii fi nekk ne ay doomu sëtu borom daaru lan ay doomu borom daaru lan ay doomu maam xalifa Niass lan ah diina jee leen jur ay waa ngoyaan juru leen yéen di xaste ku ne tey yor ay parti politique tey ay centaine de milliers de euh, jeunesse topp seen ginnaaw tey ngeen waroon a am seen programme boo xam ne tey képp kuy gouverner ci réew mi ngeen ñëw taxaw ni ko ci réew mi lan bokk doxalal programme bi problème mu mbay mi boo dugalee lii boo defee lii mais dara ñoru leen ku ci falu rek ngeen topp ci ginnaawam di ko xalamal doomu xaram yeeg seen koy lax yi daañu ñaf seen ndey ba ngeen nekk nit lu dal sénégalais yéen la yéen doomu xaram yooyu ah ah lu ñu dal ci ay jafe-jafe rek yéen ñii la ngeen nekk fi di tappale ah alalu réew mi dëkk boo xam ne am na pétrole am na gaz am na zircon am na phosphate am na malbo am na calcaire am na thorium ah lu nekk ci réew mi ak ressources yu ma xamul ngeen nekk ci réew mi tey ñu war a taxaw tey ba réew mi tey dox ak ci dundin bu mucc ayib ci askan wi ngeen taxaw lànk ne du fi am loolu jeex na. vidéo Sonko bi nag deuxième vidéo bi dégg ngeen ko amuñu lenn lu mën a wax ak lu dul ay salafiste la ñoog ay terroriste la ñoog yu kenn xamul terroriste yépp yàlla nañ am idéologie bii waa Pastef am. salafiste yépp yàlla nan am idéologie bii waa Pastef am laa ñëw li ñëpp bokk ñëpp jot ko dëkk bu nekk ci jàmm justice bu transparence amul xoqatal kenn ci injustice amul xoqatal kenn ci ay problème politique tey nit ñu yor projet bu mel noonu ñu ñëw naan leen ay jihadiste lañu yéen waa diine ji ngeen war a jug ñi fi toog jug défendre leen mais yéen ngir lan seeni ay privilèges moo tax ñu bari ci yéen ñu taxaw temb ne ab tomb amuleen ko ci sëñ Tuubaa ab tomb amuleen ko ci maam limaamu ab tomb amuleen ko ci seexal islaam ab tomb amuleen ko ci Seydi Xaaji Malik ay doomu xaraam ngeen ñu toj seen cottu nday ngeen dañuy osé di ko wax ba suba ba ginnaaw suba réew mi di dinañ ko teg ci yoon 17 bébé yi deewoon hôpitalu Tiwaawan Mbay Si Mansour woo Antoine Diome ñu ñëw toog naan na ngeen def seen enquête bu ngeen defee seen enquête nag na ngeen ni xam ne yàlla moo ko dogal ndeyam ba xam ñan ñoo lakk ndey di set bébé yi ci hôpital bi bébé yooyu mënoon nañoo nekk lu ne ci réew mi ay doomi raam ñaari nit a ngi xale yi juróomi ak fan yi yëpp Mollah Morgun laa dégg mu ci wax bay teppeeku mais moo laa doo dégg journaliste bu ci wax doo dégg benn kilifa diine bu ci wax doo dégg kenn ko askan wi koo xam ne tey boo waxee mu def impact tey nga dégg ko ci doo ci dégg kenn mu wax billahi yaa ciy wax ba dee ma wax ci ba dee kaneen ak kaneen wax ci ba dee mais doomi xaraam yi doo ci dégg kenn maa la ko wax dun ay nitu dara li ci réew mi ñun ñoo koy wax ba sunu pud yu wow ñun ñoo koy wax bay doxat fi ñu toog laa la wax mee yen seen gat du ngeen ko ci yiy yàbbi imbécile yi ngeen doon ni ay kilifa ngeen cim réew ah tey lee ñuy wax kër Mbay Faal tey rey ñaari xale ah yoo xam ne tey ab famille lan doomu ne ay ay doomu nijaay ak doomu badjan ah ñu ni deeta way ngeen yabal seenu armée tay ñu dugg ci biir koñ ba tay di japp nit ñi di yobbu ngir lan kon dafa melni état dafa laalé ci biir mi ah ana kilifa yi ci wax kenn du ci wax ah ay liveur ngeen di deg ñu ci waxa wax ba seen put yi waw du ngeen deg homme de média du ngeen deg jour ana ñom ma dambal ñi fi nekkon ana ñom yirim sexe ana doomu kharam yi ah wax leen ci wax leen ci lii ci réew mi moo gën ngeen yor seen pilim yi di duul guddeeg bëccëg fen rek ngeen nekk ci réew mi doomu xaraam yi ngeen doon ah leen ay caaxaan leen ay tappale te ci li ci réew mi lu yàqu ndey ci réew mi yéen a ko yàq ay sàcc ngeen lu yàqu ci réew mi rek yéen ñii la doomu xaraam yi ngeen doon sàcckat yi ngeen doon xañ nit ñi jàmm ah dem nak ba campagne djub ci nak fim ne façon wax bu nek fan passé ma ngi dégg ahmed khalifa ñes doomu kharam joju nan système bi yoron réew mi légui système bi ko yor kada waa kadaas manam ñu yor walum souf sek ñi yor walum finance ak ay walum wa impog légui ñoñu ab mafia lan ñoo tuddente doom ci seen biir rek nangam nangam parce que xam man ni mom dund bi mu don dund système politique bobu jeexna ahmed khalifa ñes lolu jeexna ay and ak Macky Sall nan ko ay gëmmal door ana Mansour si Jamil kay kay coaliser fi ci Sonko président gi la la wax Mansour si Jamil kay coaliser fi Sonko président gi Roy sunu candidat kay ci coalition bobu la la wax sa tapale yi bayiko ana modou karambake mi fi nekkon dama gint marché musante bu kess longo Macky Sall ba yag euh, Macky Sall di Sonko kara boba gintu de li la Sonko ay sungko. Sonko booba gént gi lii la seen tappale yi ngeen nekke bàyyi leen ko yàgg nga fee toog ne dangaa am ay projet ba fi doon laaj Macky Sall le neuf milliards yow Kara Mbacké ne dangaa am ay projet sa projet yooyu xanaa du pour jeunesse su daaru xanaa du pour jeunesse su Sénégal xanaa du pour jeunesse bi la topp ngir sa baay Seydina Ousmane seen maam Serigne Touba Mbacké Kara baal ay tappale cagatu gi nga nekkee ci dëkk bi bàyyi ko teg dil gi nga nekkee bàyyi ko alalu réew mi ngeen ànd ak politiciens yi di lekk ndayam bàyyi leen ko xool leen ci askan wi ñun dëgg nu ñor de buñ dee wax ak yéen ba ba faatu ci yàllaawu jaral nañu ko mais affaire xaj yi ngeen nekkee ci réew mi complot yi ngeen nekkee ci réew mi sàcc alalu askan wi mënu leen a fexe ba am système sanitaire boo xam ne askan wi dinañ ci gis sunu su suñu bopp fu nu toog ndeyam dañ koy dénoncer parce que ay bandi ngeen ay wuyu ngeen ay xaj ngeen ay criminel ngeen man maa leen wax lii te duma leen bàyyi tey duma leen bàyyi suba duma leen bàyyi ginnaaw suba lu may dangeen a sol seenu dàll jug taxaw temm ànd ak ndaw ñi nga xam ni dañoo bëgg réew mi dox loolu moom mooy dëgg bu ngeen ko defee am jàmm ci réew mi bu ngeen ko deful dun leen fi may jàmm te chaque jour yàlla dañuy gën a dooleel am nag sama benn live bu fi mas wax ni leen yàlla dafa dogal léegi xalé yi ñoy ay xeer yeen pa yi ngeen nek ay nen du ay caaxaan de yàlla moo tourné affaire yi parce que bu ngeen né suñu kilifa ngeen war ñoo taxaw ci njub war ñoo taxawu tey ñu jóge ci inondation yi war ñoo taxawu tey ñu jóge ci ndóol yi war ñoo taxawu tey ci sunu miraasu bàyyi ak sunu miraasu maam ñi war ñoo taxawu tey ci alalu réew mi ñu bokk tey ñu am système éducatif bu baax système sanitaire bu baax jàppale environnement bi bay agriculture yi napp gi ñu jàppale askan wi secteur informel bi industrie bi ngeen war a taxaw ba loolu lépp am ci réew mi taxawu leen ndaw ñi am taxawaay boobu pour taxawaay bi ngeen waroon a am dund ak seenu njaboot amatu leen ko ndaw ñu ne dina taxaw ba dund dundaaleel sunu ndey ak sunu bàyyi yàlla moo tourné affaire bi def leen ndey ay nen yoo xam ne ay xottu ndeyam yu oyof la ku dal sunu kaw dina nga di ñaf sa nday ku dal sa kaw nga ñaf sa nday loolu ñoo ko wax ñoo ko wax tey wax ko suba wax ko ginnaaw suuba mayu leen ñu mayu leen ñu te ngeen jug taxaw jug leen taxaw ànd ak ñun bu leen yàlla bindee tey dem ba boole leen ak ay ndaw yu bëgg réew mi boole leen ak ay ndaw yu taxaw temm ni caaxaan day jeex ci réew mi war ngeen a bëgg seen bopp. war ngeen a xoolaat seen taxawaay war ngeen a soppi seen doxalin war ngeen a xam ne ndaw ñi kafuñu réewuñu réew mi li fi am dafa dafa ñaaw. tey Malika Géné jox nañ fa communauté Layène quarante cinq hectares yoo xam ne ñu koy rayante ci seen biir te rayante gi yëpp rayante wun ko pour doomu communauté Layène yi nekk ci diaspora bi nekk Sénégal nekk ci ay location nekk ci ay coona nekk ci yoo xam ne tey war nañ leen cee mën a jàppale loolo taxul ñuy reyante de dañ ciy rayante pour tabax ko dañ ciy rayante pour jaay ko dañ ciy rayante pour dund ci ñoo ak seenu njaboot ña koy def ay doomu xaram lan maa ko wax cottu ndeyam mënu leen ko ci man jal caw ña ànd ak ñoom ak duudu maxtaar masa yoof tëdd fi ak paxu bu gémmiñam gi bëñam yu bënn yi di mel ni paxu kaña nga xamne défendre nako fi yaakar ni borom xam xam la bu ñëwé dina taxaw communauté layem ñaari at ñun la ya yor khilaf ak sayidina limam mëno genn wax ak askan wi dara bo bëggé dem méridien présidence ding fa dem bo bëggé dem palais de la république ding fa dem mais population communauté layem mënu ñu la gis ab tapalé kat nga yow dudu ku ko wax ab tapalé kat nga ku ko waxul ab tapalé kat nga ab say say bu tok muru dongo nga mako wax ab say say nga ay tiaxan baxul ay tapale baxul seen yi ngeen nekke bàyyi leen ko te wax ci diine judul wax ci nger diine judul wax ci corruption gis ngeen semaine bi ñaata rendi ngeen fi deg diw rendi nan ko diw rendi nan ko diw rendi nan ko rek ngeen ci deg lan moko waral parce que nit ñe tegootul ci tawxit fitisseur yu ne tay ngeen indi ko fi politiciens yi di indi fitisseur A ah, chef religieux yi serigne ci di fi indi ay fitisseur barke alcorane yeen ñëpp ay fitis yoyu dong mo nek ni ci dëkk bi yoyu moy répété wu ci dëkk bi di top rawhanu nit yi ba nga xamné ne ñaar ñu ci am problème lu mo ndaw ndaw rek ngeen jappanté daf leen di yomb ba cheikh ahmed tidiane ci al maktoum doon wax sang leen rew mi lu ko may réew mi sangoo deret lii la sang réew mi mooy dox ci dëgg ñu teg institution yi ci dëgg ñi fi toogal maam Seydi Hadji Malick di wax ci dëgg ñi fi toogal Seydina Limaamu di wax ci dëgg ñi fi toogal Seexu Ceneba di wax ci dëgg ñi fi toogal Serigne Touba di wax ci dëgg ku fi toogal kii que ce soit ngeen di wax ci dëgg justice bi dëkk bi tegu ci dëgg pétrole bi jariñ askan wi gaz bi jariñ askan wi zircon bi jariñ askan wi phosphate bi jariñ askan wi thorium bi jariñ askan wi askan wi mën a nekk ci jàmm ñu am système sanitaire bu baax baax am ministre de finance boo xam ne tey bu nu wootee budget dina fexe tey ba dund gii nii ñu jàpp ci yombalal ko askan wi loolooy sang réew mi xool yu làpp ñëpp buggante foofu la almaktum doon waxe mais déggu leen ko nag ngeen nekk ay politiciens seen jikko yi yooyu sax moo xawoon a jàpp sëñ Moustapha sunu jàmbaar ji ndeysaan ah, ah, ah, Moustapha si ibnu almaktum ma tàggate ko. ndaysan ibnu ibnu serigne Baba si ibnu seydi haji malik ibnu Usman ndaysan ni don wax sonko bu kiyee rek ñu bot ko sëñ bi boo xefee sonko bot la de dalay yanu de sonko da bëri doole xam nga ba ngay wax lolu yaakaaru ni sa way dina xex xex xex bu bir partem ab ab candidat motax nga ni sonko man nga bot yu balé ko mais si malik boo xefee sonko teg la fi tingoom la di fi teeg yow la la wax jambar la jàppale leen xale bii jàppale leen ko jàppale ko mooy ndamu Sénégal jàppale ko mooy seen ndam li may wax nag man nga koo bañ a def de mais billahi du gàcc ci yow sëñ Moustapha Sy sa candidat boobu malgré xamuñu ko yow lañu xam mais xoolal désisteel ngeen ñu jàppale xale bi ñu gañe réew mi changé système bi ànd nga fekk sa baay ay élection ñëw tey ngeen jàppale Ablaye Wade def ngeen ko fi loolu du dara nan taxaw réew mi dox ci dëgg nan fexe tey caay-caay jóge ci dëkk bi nan fexe tey ba sénégalais yi gis seen bopp ci dëkk bi si lool dong ngay xeex loolu dong la tax di xeex njabot gi top sa ginnaw si malik do nga la tax di xex barke alquran xexo ngir ministre xexo ngir député xexo ngir ñu naan yaay président da nga bëgg njabot gi top ci sa ginnaw sa bo wote kursu ba ñu fess del naan iskay si malik iskay almaktum gogu do nga tax tay nga bok ci euh, politique bi bëgg fe indi programme bo xamne sénégalais yi danañ ci gis seen bop am nañ leader bo xamne nak man na jallale réew mi si jamm si malik jàpp leen ci jàpp leen ci sëñ Moustapha ñoo lay woo ñu ngi lay woo bu baax a baax a baax ñoom Aly Ngouille Ndiaye nag soxlawul leen xanaa buñ defalee réew mi ba pare waaw mais yéen moom seen candidat yooyu moom téy leen ko foofu ñu boole leen ak ah, ah, Macky Macky mi nga xam ni mooy Amadou ak amadu bi nga xam ne mooy Macky ñu ñaf seen nday ba xam ne leen yéen buggatul leen yéen système boobu moom booloo leen mais sëñ Moustapha ci bokku ci na ci génn na ñëw waaw noonu la demee ay ñoom sëriñ buub yi yëpp seen candidat yi désisté leen ay Pape Djibril Fall bu dee am nga lenn ci opposition bi am nga lenn ci bëgg Sénégal sa candidat boobu na nga désisté dem nga fi élection législative benn député nga am désistéel askanu Sénégal la ko wax de ñun saa nu waxee ci làmmeñu askan wi la ñuy waxe waxe wun sunu nax su bakken waaw wama yantahu anil hawa gogu ñu waxon yenen bi ñun waxe wun suñu bakende askanu senegal lu nu wax askan we koy dundu ci ñom la nek ñom lay metti ñom lay bokkuj bokkuj motax ñukoy wax askanu senegal ko wax seen candidat yi bayyi len ko te top ci jomay fay bi ñu jital pour jëlé fi système bu bon bi barke rasulullah secteur irni yu ubi billahi midi ñu tej abu campagne tambalé nak ñu wax le ni ngeen koy defé Wow, ba jouru vote ba ba irni ya lu ne mën nañ koo jéem mais nan taxaw temm ànd ak détermination gën leen a pare tous lañ ci mënul ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen wax ne kontaanati nan lool parce que dañoo am njiit loo xam ne dafa mate njiit waaw tala tax ñu naan njiit jiitoog yooyu da koo yitteelul ñun sénégal nag jàpp nañ ni ku jiite moom kenn wërta nekk ci sa kanam waroo jël kenn teg ko ci sa kanam yow yaa war a jiitu nekk ci kanam njiit ay principe la ay option la bëgg-bëgg la man ngaa toog fële ñu lay doxalal noonu la demee Macky Sall daanaka lan fal ci réew mi ni mooy président bi mais doxalul ndey dara liy doxal lépp ay ministre la fa teg fépp ay ministre fa nekk da njiit loo xam ne kàddoom la yor di wax rek doxiwul fenn ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di leen bëgge di leen wax ngeen partagé ko mu yaatoo yaatu sénégalais yi yeewu ñu xam candidat yi ñu war a àndal ak ñin war a àndal tey pour defar réew mi te bàyyi xel ci xaj yi nga xam ne fi mu di leen jug fi mu ne tamante dëmm gi dina jug fenn wu ne di ngeen gis tey ñu koy fenal ñi nga xam ne ñoo fas yéenee soppi réew mi jële ko ci ay caaxaan yéen ñi abonné gul ci Boy Malika TV nag dem leen ci TikTok ba ngeen abonné fa léegi ñu tàmbali fa live yi ci campagne bi booy Malika TV dem leen abonné fa ñu live fa ay live yu sap sap léegi daanaka sénégalais yi dañoo daw Facebook bi kenn nekkatu fi léegi ñépp nga ca TikTok ba looloo ma yóbbu sa TikTok ba mais bu du doon loolu fii laa koy toog mais du tee dama ko fi live parce que bari na ci ñoo xam ne man yàgguma ubbi TikTok mais bari na ci ñoo xam ne tey ba tey jii amuñu TikTok. xamuñu sax nun koy utiliser mais serewut ak Facebook bi ak YouTube bii nga yor di ko utiliser ku ko ubbi jiwul na ko ubbiji ji mais ku abonné wul ci sama bos Boy Malika TV demal nga abone fa ñu am fa abonnement yu yaatu di fa live live yu takkarnaase ci li xew ci réew mi sëriñ si ànd ak politiciens yi ni duñ ñu wàcc politiciens yi ànd ak homme d'affaires yi ñu duñ wàcc ñu jàkkaarloog ñoom doxaan seen ndey xamal leen Seydina Limaamu nekkutoon ci lii sëriñ Tuubaa nekku ci woon Seydi Haaji nekku ci woon sëriñ Saaliw Mbàkke sunu sang ba nekku ci woon Seexu Cene ba kenn nekku ci woon kon ku ci nekk di tuddoo kooku dañuy toj sa cottu ndey ba pajal ci ab lingom laa leen wax dawuñu ci daayuñu ci Duudu Maxtaar mii ji Yoff ab xaj la ab saay-saay la ab wuyu la ab mafia la day mais quarante cinq hectare hectares laayeen yi billahi balaa ngeen a yaakaar ni di ngeen ko dagg noonu maasale ko dagg ndayam jaay ko des ko nu leen neexee laayeen du si gis seen bopp nax ngeen seen bopp